Mm-hmm. waaye ki ñu ko daan laaj candidature indépendant la daan nekk. Mm-hmm. candidature indépendant mm-hmm. la daan nekk. léegi nag ci candidature indépendant boobu nag. kooku lañ daan laaj dix mille parrain. par contre ki nga xam ne dafa am parti politique am am am am appareil. ndax parti politique boo xoolee tey quarante cinq. département yi nekk ci réew mi yëpp. da nga fay am da nga fay am ay représentants yu am doole. pratiquement chaque commune di nga fa la fa nekk. kon kooku soo ko laajee parrainage da nga koo tooj.